di ziar qui dit, kii Alphonse aussi euh, bienvenue Manoukali aussi euh, di leen ziar Ben Djouf aussi euh, di leen c'est un plaisir vraiment de vous lire Thierno Diallo aussi di leen ziar bu baax a baax di jox on avance avec d'autres journaux yi nga xamné ne ñoo neen ba si li nga xamné ne nek les sujets d'actualité yi nga xamné mom lañu gëna waxtané fi au Sénégal liker partagez aussi hein, pour permettre ñi nga xam ne une cloche de notification bi ñu mëna téwé bi abonnez-vous aussi euh, massivement sur euh, chaîne euh, T3B télé bu baax bi le tribune tribune bu <laughs> <laughs> Bougane Gueye Dany ñëw na euh, si euh, li nga xamné ne na euh, walum l'homosexualité un débat sans fin au Sénégal mom loolu titré après la visite de Jean-Luc Mélenchon à Dakar je sais pas pourquoi tribune wala sax qui dit Bougane Gueye Dany ñu bëgg jël li nga xamné mo nekk ce sujet d'homosexualité euh beaucoup indi si débat bi au Sénégal man à l'époque ba am na sàmm jikko yi bokkoon naa si quelques rares personnes yi nga xamné ne dañoo l'homosexualité au Sénégal euh, définirul euh, vraiment le vécu des Sénégalais. mais xam xam nga li sax day melni ni xam dafa de promotion homosexuelle. voilà c'est euh, xam nga xam nga li ma wax. le fait que mu doon ben sujet bo xamante ken waxatu ci Sénégal. voilà les gens n'en parlent plus. ken déggu ken ken ken coowu aussi ken yuuxu aussi ken khatara aussi gàddu woon na ci élection législative fayul. Mm. élection législative yi jàll na léegi mu bëgg koo gàdduwaat comme moyen de pression ne léegi premier projet de loi bi ngeen di jàllale homosexualité la war a doon mm. bu fekkee ne danga nga ko jàllale yow kese da nga ciy wéet mm-hmm. xam nga toujours ma wax ko mën a discours dafa am rapport ak contexte mm. mënoo dem fekk ji par exemple waa Touba ñu nekk fa nga war a mën a waxtaan ak ñoom lu jëm ci wàllum diine wala waxtaan ak ñoom ci jumaa ji ak nangu nga ñëw di leen waxtaan affaire NASA mm. ay affaire ari ay ay aéronautique nekk fa di waxtaan ak ñoom ay affaire atome nangam ak nangam sa débat du jàll donc à chaque fois am na débat boo xam ne dafay baax par rapport ak benn jamono jamono ji débat homosexualité bi bu yeboo mu xam ne du jaay. Mm, loolu daf ko war a xam daf daf si war a dimbali boppam dañ koy laaye biir rek. débat bi fu mu ko jëlee na ko fa tegaat <laughs> sénégalais yi xam nañ bu baax non non non dama koy dimbali parce que gis nañ gàddu woon na ko ci élection législative yi mën na ko déet tegaat leen ko ci suuf du ngeen ci am ndam du ngeen ci am ndam. Mm. sénégalais yi wax nañ ànd sàmm jikko wax nañ ñoom wax nañ ñu ngi leen di xaar. Mm. assemblée baa ngi doog a ñëw. pare gu ñu foofu nga gàdduwaat ko xëy sa journal ne ko dang ci une bi naan waaw un sujet xaw ma sans fin nangam ak nangam ay caaxaan la. Mm. bu jëloon dund gu cher gi waaw. bu jëloon ci par exemple waaw euh, pouvoir d'achat bi nañ koy yokk ak noonu dañ naan kaan waaw. parce que ay sujet la yoo sénégalais dañuy xey di jàkkaantoo ak mom mm-hmm. dañuy xey di ñaan yalla mu évoluer dañuy xey di ñaan yalla moom amélioration mm. tay ji ku xey amul lu mu dépense amul lu mu añee nga kan débat homosexuel dana lan puusal sama kanam man mako luma jox sama njaboot nga naan man ay ay ay homosexualité gi xam nga pour man amna ño xamantene dañu gis moy limay wax rek fokk ne dafa am ay ay ay solution passe partout wala ay solution miracle ànd sàmm jikko ak ñom Ousmane Sonko bañ ko doon campagne en 2022 ba mu sonaloon nguur gi fi nekkon dafa am lu taxone mhm. dafa amone ay base yu dëgër ñu taxawoon non seulement amone une adhésion populaire ñëpp yaakaaroon ne tey jii dafa am ñu fi nekk ñoo xam dañ leen di dooleel ak yoonoon mais situation bu fi jógee da ngay seet ñii lan laa leen mën a sonalee. Mhm. mais bul jëli la la sonaloon Macky Sall la ngay indi ko ne dama koy sonalee tey jii ñi fi nekk da ngay juum. parce que mhm. contexte yi dafa changé personnalité dafa changé euh, position yi dafa changé.

li fi nekul waaye ñu war ko nak par ordre de priorité ngay mais da ngay nga farata ngay avancer bi gëna farata yi gëna doon farata ngay déjà budget mo gëna doon farata mu ñu après nak buñ ci joggé nak ñi dem farata par farata farata par farata yi nga xamanteni suñu poche luñ ci def lu gëna diis luñu nous suñu Nous bo am lo baye kër ga bo am lo kër ga lool mo ëpp solo mm-hmm. après nak ñu ci yeneen yi nga dañ ils sont là pour cinq ans mm-hmm. nañu mais bu fekkente ne sénégalais dañu xëy li xew ci journée démb bi yëpp amoo lenn loo def ak li fi am lépp. Mm. nga jël lépp ba mu rafet nga ñëwaat ne dàng borom ñaari ci ñu ñu joxante ay loxo sa journal naa ñëw sujet sans fin. c'est faire leur promotion sans vouloir le dire te man loolu man ci d'accord. Jean-Luc Mélenchon aussi Jean-Luc Mélenchon fi ba dafa il a félicité aussi euh, le premier ministre hein, et euh, le peuple sénégalais euh, Jean-Luc Mélenchon aussi il faut mm. rappeler que tweet par rapport à li nga xam ces élections législatives au Sénégal Bouna Albouri ziar Nenko ko bu baax il est il est là Aïssatou Seck aussi ziar Nenko ko bu ziar aussi qui di Ziza Diaw c'est des habitués des lieux on aime bien les voir euh, si li nga euh, live bi euh, on continue toujours avec les journaux journaux et batailles à sujet d'actualité